xam nañ ni Ousmane Sonko dañ ko dindi ci liste électorale maanaam bugguñu mu nekk mu def candidature présidentielle mais keroog ci vendredi bi la koy doog a yëg alors vendredi Ousmane Sonko dafa yebaloon ki ñuy wax Ayib Daffé pour mu dem jëlil ko fiche de parrainage bi Ayib demee si lañ ko wax waa administration bi ne ko Ousmane Sonko duñ ko mën a jox fiche parce que dañ ko rajee à partir de jour boobu lay doog a xam ñu ndeke moom dañ ko génnee ci liste yi alors texte bi li muy prévoir mooy boo ko yégee à partir de ce jour am nga cinq jours pour nga def sa recours looloo waxal ñu def recours bi c'est-à-dire poolu avocat yi def recours bi nga xam ne moom lañ jógee déposé fii ci tribunal ou d'instance bu Ziguinchor recours bi nga xam ne mooy tax ñu delloo Ousmane ci fi nga xam ne mooy ci liste électorale yi mu am ses fiches de parrainage mën a dem ci jongante bi nga xam ne moom la ñëpp di xaar en mille en 2024